waaw jaamu jaamu nekk nag si Kër Masar dafa mel ni ngay daan sa doole yaa gën a xam. waaw waaw waaw waaw ñun moom xam rek ñun moom ñaari goro ñu jur ñu leen mooy bu ñu xëyee rek dina bi quoi xam nga tëdd moom baaxul quoi. bu ñu ngi wëri waar ba mu jaral leen ñu jël dëkk beeg ñu ñu jël ndox meeg yooyu noonu yow lan mooy sa point de waaw non xam nga maa nit ñi ñoo ku nekk. maam fi nga toll bay jël gaale ak sa morom toll ba mën a toog muñ xama bokkul xama li nekk euh, te bokkuñ jikko quoi comprendre nga waaw xam nga ku nekk ak foo toll rek mooy sa kii quoi mooy sa xel quoi a waaw ban mooy ñu dal rek te xam ne yàlla mooy maye quoi. fu nit mën a toll rek xam nga dara di la metti wala boo comme si say sa sa famille yaakaar la ci nga war leen dimbale quoi xam nga ñu muñ quoi yàlla baax na yàlla dina ñëw mais wax dëgg yàlla man moom digalu ma kenn kenn kenn mu dem si gaal yi parce boo demee si gaal yi dee ngay gën a jege comme ko dund comprendre nga dañ ne géej amul ko quoi comprendre nga nga xam ne mu toog jaayante ko quoi xëcc bu dagu rek mu nga dig quoi wala mu yemoo teg comme daal waaw noonu rek lañ ko gisee quoi wóor na yàlla. en tant que jeunesse mel na yaa ngi ay suñu dóor waar ban gis-gis nga xam si gis-gis am si mooy comme si nguur gi yi waaw dañu war a geesu quoi parce que. dañ doon jooy dañ doon jooy ñoom ñu ñëw nañu fomp leen seen rongo yi comprendre nga dinañ leen dinañ leen dinañ leen di ñu xeexal leen bu nekk nag ñoom bi moom ñun ja ñun jaagari ak am naa maanaam gisuñ suñu bopp quoi. wilaay dëgg la nag ñoom ñu ngi jubal xam nga ñu ngi jubal tamit mais xam nga dañuy geesu quoi xoolal ñu place yoo xamante a ñu nekk ñu ramasse bi dañuy ñëw ñu ramasse ñu sonal daa nekkul Sénégal léegi marché yëpp a ngi lan léegi di liggéey barki alxuraanu karim mais Kër Massar daa mel ni bokkul Sénégal te Kër Massar ay ay ay góorkatu waar ñoo fi nekk ay góor yàlla ñoo fi nekk ñoo xamante ne seen parents yi dañ leen yaakaar ci lu bëri di laaxi loolu daf ñu metti quoi état bi jumaa yi donc Sonko geesu leen ngir jëm Seydina Mouhamed ngeen jàppale ñu ba yàlla tax ay góorkatu waar la ñu bu ngeen xoolee suñu tool ñu xoolewuñ kenn financé ñu si xaalis nañ ñu yaatal nekk xamal may ñu jàmm ak salaam teg ñu bërëb bu mool lu mën a liggéey quoi daal suñu doole communauté wu laay communauté daara doon message pour pour si jàmm Sénégal. waaw comme gars yi waaw gars yi moom Sénégal moom réewu teranga la quoi xam nga ñu réew mag ñu baax ñi fii lañ dëkkoon mag ñu baax ñi fi nekkoon yëpp fii lañ dëkkoon quoi moo tax kenn gën la wu ñu dara billaa wala nañ liggéey rek xam nga gars yi geesuwaat néew di doole yi quoi ñu si kaw nañ geesuwaat néew di doole bu baax jàppale leen parce que mbooloo mooy doole quoi buñ buñ mbooloo rek ñu bëgg nañ ko am te gars yi bàyyi am soxorante bi xam ak am gars yëpp yéen a woon te jàmm quoi te jàmm xam rek ci lépp xaj quoi te Sénégal gars yi waruñu dund affaire xam affaire mafia affaire soxorante quoi ak rayante bi nii nii nii nii yëpp daa mën a ñàkk gars yëpp yéen a woon te jàmm mag ñu baax ñi nga xamante ni ñooñu gën fuuf yàlla wàcce woon leen bi gars yi dañ yéen woon Serigne Touba Alaaji Malick dañoo yéen a wante woon bokku maam bokku bokku lépp billaa wala taala kon nañ ñëpp yéen a wante jàmm te yàlla tax lu waay am ñu yéene ko doomu aadama bi ko am te yàlla rek tax yàlla mooy maye quoi billaahi loolu rek la amoon lu ma siy jàllale billaahi maa ngi bégee gars yëpp Baye yëpp maa ngi leen di bégee billaahi jaajëf waay gay de jaajëf waaw xam nga bala nga naan naam ne fa naam ne fa vol dire situation dëkk bi njàng mi sooxe na jeunesse bi débordé te ñu jiite ñoo ko sooke quoi boo xoolee assemblée ne Sandaga kuréel fenn mën a te l'histoire retiendra parce que booy bu ñu ba ñuy jël saccagé seen classe yi

mais innamal ahmalu bi naxaat intention ba acte maanaam yéen a ji rafet yàlla da koy fay borom ba te ku nek yar bopom rek après dinañ mën a avancer quoi. mais ban ban message ngay lancé waaw jeunesse bi meun nañ toog fi liggéey te ñu fi nek aussi jitu ñu jappalé jappalé jeunesse bi xam ni na quoi aussi waaw boy ñu ngi def du tout pour am te da ngay waru ñi ngi complexe sen technologie jox leen trop d'importance quoi mo waral ñu baye culture et religion qui sont le début et la fin du développement d'un peuple affaire bi. du moonin quoi mais dignité personnalité ñu bañ la dégg si naka sudul noonu quoi et li ngay tukkee mën nga toog fii nga liggéey parce que dëkk ba fële tamit aussi dafa métti quoi waaw bu yaa ngi koy teg si kër rek duggoo ci loo warul dugg dafa métti quoi. mais mais mu mel ni Sénégal fii xale yi dañuy investir de sorte que après état lu mu ñu fekk wala yenn euh, kii yooyu noonu mais ba tey kii bi du dugg foofu pour am lu ñu suturlee ak am lu ñu vrai ku ci nekk da nga jot li ñu naan jolof ak a bës moo tax ma xëy na fees quoi tegu ndey de first teg si bàyyi dem na mees quoi dem uti. yeah takk sama ndigg daanu punto it ñu moo moom fiis bul tiit ñu naan moom fiis bul tiit loolu uti la quoi ak takk sa fit dem uti mais tamit mooy comme li ngay wax rek booy ñëw buñ demee ba fàq dem uti rek ça veut dire que dëkk bi fii nam va te gars yi fi bees yi fi ñëw ñun dañoo am yaakaar ci ñoom moo waral ñun ñu teg leen fi boo xoolee jeunesse bi ñëpp a génn di profité di saluer geste bu ñu naan fal ci ni Doff muy un hip-hopeur boo xam ni bon ñun ñëpp kontaan nañ ci quoi. di calmer aussi sama copain Kopa di ko wax ni loolu victoire hip-hop la quoi bu hip-hopeur nekkee bon quelqu'un boo xam ni mi ngi ci gouvernement bi di job peut-être dinañu gestu quoi loolu laa jàpp quoi di ko saluer quoi.